dégg nañ ne talaata dañ leen a convier ci assemblée nationale lan lañ mën a jàpp ne lan nga fa nar a waxtaanee naam ñi ngi wax naan dañoo nar a dissoudre assemblée nationale. waaw loolu session extraordinaire la ba nga xam ne dañ ko ubbi pour euh, réviser suñu réglement intérieur ñëpp gis nañu suñu réglement intérieur dafa jagadi woon méngoowuloon na ak constitution. lépp lu jëmoon ci premier ministre ak euh, déclaration de politique générale nekku ci woon ah ñun de yàggoon nañ ko jooy nag en tant que euh, opposition. yàlla daf tey ñu ñëw yegg pouvoir ñu continuer ci combat boobu ba groupe parlementaire yi mujj waxtaan delloo si seen xel ñu mujj déggoo pour ne nañu réviser règlement intérieur boobu ci liggéey boobu nañu nekk donc euh, mardi nañ koy tàmbali. Euh, yaakaar naa ni si semaine bi euh, dinañu fixer date ñu nga xam ne moom nañu daje commission daje séance plénière pour révision règlement intérieur bi. sama dernière question laataa may jox Omar gis nañu démb président bi ginnaaw conseil des ministres la xew ci Tamba ñu bëri nee nañu da leen a punir est-ce que d'accord nga ak ñi wax loolu. Euh, non gëmuma loolu te yaakaar naa ni décision yi. conseil supérieur de la magistrature moo ko jël euh, du président rek a nekk conseil supérieur de la magistrature da ko jiite mais conseil supérieur de la magistrature structure collégiale la magistrat yi ñoo ci ëpp te yaakaar naa ni proposition yu ci ëpp président day ñëw rek ratifié euh, donc te euh, kii la structure boo xam ne les décisions se prennent à la majorité donc mënuñoo jàpp ni yooyu ay décision président de la république la mais euh, constitution bi moo wax ni président de la république mooy présider conseil supérieur de la magistrature parce que lépp luy administration président moo ko jiite donc ci wàllum boobu yaakaar naa ni ay jën nañu ay décision affectation ay décision nomination euh, gisuma ci promotion gisuma ci sanction lu mu ci gis mooy ay magistrats yoo xam ne ah yóbbu nañ leen ci ay bërëb yoo xam ne ci Sénégal la nekk. Euh, Sédhiou Tambacounda Kédougou yëpp ci Sénégal la nekk te yaakaar naa ne ay sénégalais nañ fay jugé te juge yi ñoom dañoo war a rendre justice au nom du peuple te loi bi moo leen tiim donc gisuma ci leneen loo xam ne mën nañ ko ci commentaire waaye nag xam nga politique moom souvent euh, ak euh, commentateurs yi ñoom souvent ñoom ku nekk le commentaire est libre daal jërëjëf. waaw honorable dafa am lenn lu nga xam ne dañ koy sof rek ci laaj bi ñu la laajoon sànq mooy ci en deux mois gis nañu réalisation yu toll nii ci fukk at ak ñaar ñi ngeen fi wutul ñi fi nekkoon xanaa dafa amoon manque de volonté bañ a def euh, liggéey bi nga xam ne moom la ñu réaliser fii ci en deux mois. waaw je pense que président de la République Bassirou Diomaye Faye moom euh, lu mu prôné mooy une transformation systémique du Sénégal et également jubal jubant donc euh, résultat Euh, ay résultats yi nga xam ne en trois mois ah jàpp nañ ni vraiment am nañ ñu yaakaar ci lu des ci manda bi lu ñu ngi def rek mooy ñaanal ko ah gudd fan ak wér-gu-yaram ak kattan mu continuer liggéey bi moom ak le premier ministre Ousmane Sonko ak gouvernement bi ak ñu leen di jàppale yëpp donc yaakaar naa ni lu ñu dig sénégalais yi incha allah euh, en tout cas jàpp nañ ni ñun am nañu yaakaar yi. en tout cas dinañ ko def te sénégalais yi dinañ gis différence bi incha allah su neexee yàlla jërëjëf merci. ñi ngi wax naan dañuy dissoudre assemblée nationale ñenn ñi nga xam ne dañoo féete ci yeneen euh, beneen côté bi la ñuy faral di wax moom mooy les priorités sont ailleurs que ñu bëgg dissoudre assemblée nationale lan ngay tontu ak itam ndax dissoudre boobu ñuy wax lu am na waaw man loolu dinaa ci nekk à l'aise parce que ñun dañuy voter ay loi donc concernant l' assemblée nationale bu fekkee wàllu di solution la aussi tamit il faut ñu xam ne ne euh, suñu constitution moom moo ko consacré dans son article cinquante cinq wax na ne président de la république am na possibilité di dissoudre assemblée nationale bu amee deux ans kon loolu vraiment prérogative président de la république du Sénégal la loolu bos bu jotee ñoom ñoo exécutif moo ko war a def ñun législateur ñun on doit se conformer ci li nga xam ne moom lañ voté ñun moo ay loi donc loi boobu bu yegsee ci ñun wax dëgg yàlla comme sénégalais yi ñoo ko bëggal seen bopp dañ ko war a nangu concernant la dissolution d'une autre manière aussi il faut savoir que ne dafa am leneen loo xam ne dafa tàbbi suñu kaw dañoo dem ay élection présidentielle les sénégalais ont voté à 54 virgule 28 pour cent ah au premier tour man je pense que ñun ñëpp sénégalais dañoo war a décrypter ce message là mooy sénégalais bi dafa bëgg changement changement boobu nag ci exécutif bi la ko bëgg mais dafa war a feeñ au niveau de l' assemblée nationale aussi. parce que suñu sanctionné c' est parce que ñun minorité bi ñu nekkoon à l' assemblée nationale ñun lañ doon déglu. kon xam nga ne kon reflété wul exactement kon tey jii li nga xam ne moom mooy attente sénégalais yi donc kon man ci sama jàngatu bopp assemblée nationale bi war nañ ko di dissoudre ñu dem vers d' autres élections sénégalais yi tànnaat ñan la ñuy yónni au niveau de l' assemblée nationale parce que ñun aussi tamit mandat rek boo xam ne sénégalais yi ñoo ñu ko joxoon la ñu waree arrêté dañ koy arrêté ñu jublu ci leneen donc man gis-gis boobu laa am ci vraiment dissolution d' accord alors euh, mardi session euh, extraordinaire am na mën nañ tudd loolu mën nañ jàpp ne Euh, da ngeen di xoolaat li nga xam ne moom moo jëm ci règlement intérieur bi ñu bañoon li tax ñu nangu dafa am lu xew ci diggante bi wala. waaw moo tax euh, oh, nous devons crier victoire sax. parce que nangu nangoo jubbantiku kay. Mm-hmm. yàqul dara. ndax dafa am lu jubadi woon au niveau de l' assemblée nationale. te bu ngeen seetloo euh, le président Bassirou Diomaye Faye avec son premier Ousmane Sonko. lu ñu indi se est clair mooy jub jubal jubbanti. donc jubbantiku nag ci instance yëpp la war a nekk. donc rawatina nag assemblée nationale. foofu ñuy voté loi yi bu ñu fa demee ba gis fa règlement intérieur boo xam ne wax dëgg yàlla euh, dafa am yu mu jalgati a ah, bu ñu leen waxee jub jubbanti leen ko tey jii ñun ñëpp ñu nangu war ko mën a jubbanti loolu c'est une très grande victoire pour le Sénégal. d'accord alors sànq bi ñuy ñëw jot nañ beneen information mbay moom ma ko jottali dégg nañ le premier ministre Ousmane Sonko dafa considéré benn pôle avocat pour attaquer Madiambal Diagne information yo yu avéré yu dégg la wala. jo mënu ma ko mënu ma ko confirmer. parce que xam nga ne presse bi ñu am rek bon j'ai vu que ne son avocat sorti au créneau pour pour def benn texte donc moi je trouve que aussi c'est très normal parce que nit bu ne nit nga au-delà qu'il soit le premier ministre du Sénégal au-delà qu'il soit vraiment la leader incontesté sax tamit ci wàllu taxawaay nit la dafa citoyen la dafa am njaboot dafa am ñu ñu ko ñu ko xam ne dañ ko sopp donc kon waruñu rek rek rek rek di nekk ci tele yi wala di nekk ci bind lu ñaaw lu ne ñu dendale ko moom en tant que citoyen normal am na ay avocat war na bu gisee lu ko naqari mu daal di porter plainte c'est tout à fait normal et puis mu ngi jàngalaate waat ne au-delà ci tey fonction yi muy occupé moom il reste un citoyen su amee lu ko naqari xam na fu mu war a jaar mooy moom gëm na ne justice Sénégal war na ko mën a defal li nga xam ne moom la bëgg moo tax mu resté en justice. Mm. donc nous trouvons très normal que man député bi que yow bi que yow citoyen sénégalais bi suñ la tooñee nga bañ a fayul sa bopp nga jaar fi nga war a jaar. Madiambal dafay déranger wala. non non non Madiambal mënuñu déranger. Mm. xam nga lu tax mënuñu déranger. barki démb yàggul dara lañ doon def lu gën a ñaaw ñoo ngi ko doon def. te dérangé wuñu donc lu ñu war a def ñoo ngi koy def mais c'est juste que pour dire que ne euh, dañu voté ay loi loi yooyu moom moo ñu tënk pour réguler la société donc il faut que ko ñëpp ñëpp ñëpp yem ci parce que Badiabal tamit bëgg ku ko def tort moom gis nañ ko mu porté ay plainte plusieurs fois n'est-ce pas gis nañ ko mu porté ay plainte ku ko tooñ mu dem porte la plainte man je pense que siège boobu aussi tamit la ñu war a respecté beneen citoyen boo xam ne gis na loo xam ne ñoo ngi koy wax wala di ko def mu nekk loo xam ne euh, neexul a dégg surtout sax ci xale yi parce que nekk ci télé yi di saagante wala nekk ci euh, euh, presse écrite bi di wax wax ju ñaaw wax dëgg yàlla ñun Sénégal ak fi ñu jóge war nañ ko mën a déranger pour aller de l'avant